Euh, ma leen di gërëm di leen sant li ngeen ñëw tey am na solo di ma laaj sama avis ak sama xalaat ci mbir mi xaw biir Médina te umpul kenn euh, xam ngeen ni démb waa Médina li ñu def du ma sax waa Médina parce que encore une fois Médina ay nit ñu baax fa dëkk nit ñu màndu may rappeler toujours di ko bamtuwaat ne boo gisee tey ñi nga xam ne ñoo gën a ràññeeku ci xeex bi ñun de ñu ngi ciy bay suñu waar. war naa leen keroog si émission bi ma defoon ne boo leen gisee jàmbaar yu mel nii Awa Marie Coll jàmbaar yu mel ni Souleymane Mboup ak sax suñu mag Youssou Ndour gis ngeen li muy def fan yëpp si mbir mi pour euh, contribuer à l'éducation di bégal nit ñi si biir confinement bi xam ngeen ni kon waa Médina ñi nga béy seen waar si mbir mi donc li xew démb ñun de duñ si ànd ñaawlu nañ ko moo taxoon tey ñu ñëw di ñaax nit ñi ñu continuer di def li nga xamni état bi diglé nako encore une fois suñu ay dom, suñu ay rak suñu ay mak, xeyna ño def mbir mom motax on est obligé en tant que leader d'opinion et leader politique ñu lancer waat encore une fois un appel à toutes les populations de la Médina pour que ñu bañ ñu ràññee ci mbir yo xamni ni méngoowul ak euh, safaaru ak li nga xamni état bi diglé nako medina Médina way bu bu am solo la ci bir Ndakaaru euh, en termes de, de nombre de population justement motax ñun mesure nga xam dañ koy jël au niveau national sax ñun dafa war gëna renforcer au niveau de notre quartier donc maa leen di ñaan yéen samay rak maa leen di ñaan yéen samay jarbat ngeen respecter li encore une fois li nga xam ni état bi wax nako ko nañuy raxas suñuy loxo nañuy utiliser gel bi nañuy takk masque man interview motax ma dindi sama masque waye duma ko dindi sama kanam euh, nañuy raxas suñu loxo encore une fois nañu def aussi de la distanciation physique man dama wax distanciation sociale parce que loolu méngoowul lax ñun suñu euh, suñu nekkin biir Afrique waaye distanciation physique bi c'est-à-dire que ñu def séparation entre nit ñi loolu lu am solo la ñu ñaaxaat nit ñi ñu jublu ci loolu. vraiment à tous les adultes parce que dama jàpp ni ay xale ñoo koy def lancer un appel à tous les adultes képp koo xam ni sa koñ loolu xew na fa da nga génn dem ci xale yi waxtaan ak ñoom wax leen ni li nga xam ni état bi digal na ko seen njëriñ la du njëriñu keneen c'est notre santé qui est en jeu bu ko defee aussi may lancer un appel à tous les présidents des ASC de la Médina parce que am na ñoo xam ni ñoom ñoo xam ne lañ dañ leen di déglu nañu wàcc sur le terrain sol seen i masque waxtaan ak xale yi parce que xale yi bëccëg bi mën nga leen gis couvre-feu bi guddi xëy na dina am lu ma gàllankoor waaye nañ leen gis waxtaan ak ñoom individuellement et collectivement les présidents d'ASC encore une fois maa ngi ñaax ngeen wacc sur le terrain jërë ngeen jëf li yaakaar ne li fi amone dootul amati euh, et unis solidaires nous vaincrons le virus merci beaucoup.